ñu bëgg tey lu leer parce que sénégalais yi ñu ngi coow li bëri na ama dafa ragal Modou Lo ama nee na lay laaj comme moo ko mas di engagé nag defe naa ciy junni ba ciy million war na cee mën a wax lu sénégalais yi mën a dégg Abdou Bakhoum suñu tonton suñu papa ñu ngi lay nuyu di la ziar. jërëjëf maa ngi lay fay di fay euh, ak lu làmb yëpp di nuyu ñëpp di nuyu borom télévision bi ndax yéen nag wax dëgg yàlla yéen yoro émission bi nga xam ne nag moo xaw a jege làmb ndax Leewtoo moom. beneen mbir la boo xam ne bii wax dëgg yàlla dafa bokk ci bëre bokk ci làmb xam nga làmb mën nga caa dem sax te doo bëre waaye yéen da ngeen a bokk ci bëre bokk ci làmb ndax boo léewtoo rek yaakaar naa da pare kon ci wàllu yi ngeen xam ne moom ngeen di def daal ñoo ciy kontaan di bëgg ci yéen euh, fii ngeen mu fekkee ci sama résidence neex ma lool nag mm, loo xam ne lii wax dëgg yàlla gis naa ne yéen a ngi doxal làmb waaw loolu am na solo. léegi dina bu bëgg naa tuuti ci lu gàtt rek parce que nit ñaa ngi dégg Abdou Bakhoum Abdou Bakhoum Abdou Bakhoum Pikine la dëkk Abdou Bakhoum Bawol Bawol Abdou Bakhoum Saloum Saloum Abdou Bakhoum Njambur Njambur la wala. waa man maa ngi dëkk dëkkab Serigne Touba ci Bawol Demba Dieye tukki bàyyi dige yàlla dogal euh, samay waajur yëpp mën naa ne ci kàttanu yàlla euh, ñooy nekk ci tund Bawol maa ngi sant yàlla nag bu baax am fier dëkk ci dëkk bu Serigne tubaa dëkk muy Njaareem. yaaw région de Diourbel laa bokk ndax maa ngi dëkk dëkk bi wax Ngoy Aliou Sylla la. waaw kon waaw département Bambey arrondissement Ngoy donc ñoo ngi sant yàlla bu baax de passage di leen nuyu bu baax a baax di xam ne seen doom daal mu ngi fii di yëngu ci mbir mii nga xam ne moo nga may laaj ànd ak doomi champion bu mag boobu ñuy wax doomi Falaye Balde nga xam ne moo lay amadu Am Balde may ñaan sama borom ngeen jàppale ma ci xeeb ma leen ci dikku ak sama yeneen mbokk yi nekk di ko mante siin ba Kajoor ndax am naa fépp am nañ ndax boo demee ba Daaru Baaxum ca Kajoor sëriñ Mor Fass Baaxum a nga fa de maa ngi nuyu sëñ góor ak ñu nuyu ñëpp bokk njaboot yëpp di ñaan suñu borom tabaraka taala ñu jàppale ñu ci kàttanu yàlla ci li nga xam ne ñu jëm te am naa ci yaakaar ne yàlla mën naa dogal dina taxaw bu soobee yàlla lu la booleeg waa kër Fallaye Balde jërëjëf loolu neex naa xam ndax Fallaye de yàlla dafa dogal bi may euh, dëkk Pikine euh, su ma jumut à soixante euh, soixante-dix-sept soixante-dix-huit fekk na man maa ngi Pikine boobu Fallaye Euh, dese na kàttan tuuti ndax boobu mu ngi dawal benn R4 boo xam ne bii AD la woon ma gis ko nag yàlla dogal ma ma bëgg ko daal su ma lu ma xiir daal daw dem ci moom bu ma demee ci moom damay toog ci moom leen saa yi buy yónnee man lay yónni ndax bu ma yónnee vif ma dem ñëwlaat ñëwaat daal bëggal ko sama bopp ba mu xam ne bëggal naa ko sama bopp yàlla dogal ma sax ca kër ga nag ne ca kër ga ànd ak ay doomam yu góor dem ci yàlla sa ki ñu doon wax euh, sule euh, kii à euh, ah, papa Balde booba ñoom Jiina Baldeek ñoom Kumba Baldeek ñoo ñëpp ñoom aw Fodeek ñoo ñook ñoom Dogo ñu waa kër Fodé du suba yooyu daaw ñu tàggoo ma ak ñoom ñoon nag vraiment ma xuus ci seen biir yàgg ci seen biir daal mu ñi ñoo xam ne ñu am ngor lañu moom itam mu jàpp ma comme doomam ji mu jur yàlla dogal na ba bi muy gën a néew doole sax buy dem làmb ma ak moom ñooy am dem làmb kon muy loo xam ne lii gis yàgg na daal wax de yàlla lu yàgg rek dëgg la Ama kañ nga ko njëkk a engagé ci làmb. bon 2008 laa ko commencé engagé ci làmb ndax 2008. premier combat am wala. waaw premier combat moo ko Youssou Ndiaye ñoo ko bëre yàlla dogal keroog bi nga xam ne promoteur bi nga xam ne moo ko tëggoon sama juum xëy na sëñ Modou Niang la waaye licence ba boobu bu moo ko signé woon bi mu ñëwee signé licence bi bëre ji Fallaye ñu ne ko ah ma daa bëre day am na combat bi mu bëre jee ba ñibbisi mu waxu dara ba mu ñëwee euh, manager ba indi woon reliquat ba. da ko ne licence bi mu ne ko reliquat mu ne ko waa indi licence ba pare mu ko joxe licence ba pare mu def ci poosam reliquat bi ñu ko teg ci loxo mu def ci poosam ne ko jël nga li nga ci am mu ne ko waaw mu ne ko waaw kii nag euh, përëm mbër la moo xam ne mii yàlla daa dogal mooy caatu kër gi yow mii yaa doon engagé Papa Balde di engagé Jules Balde di engagé Pathé mais kii dama ko joxe ba pare mu ne koo ko jox mu ne ko Abdou baaxum laa ko jox moo ko moom ba ma ñëwee itam daa jël reliquat ba ak licence ba teg ci sama loxo ne ma lii sa mbër mee ko moom seetal nooy def ak moom xam nga mbër moo engage wut bàyyi nekkati reliquat ba ak licence ba jox la loolu mooy jëbal lépp xamal ma it ne ma wax ju xóot daal yoo xam ne xëy na mënuñu ko wax ci télévision waaye daal euh, bokk na ci li nga xam ne lii li ma gën a marqué ci sama àdduna tey euh, kilifa toog ak man wax ma ko bokk na ci loolu moom parce que li loolu tamit dafa jar a leeral parce que am na ci loo xam ne wax ko day am solo mais léegi nag dañuy ñëw ci l'essentiel bi mooy Modou Lo Ama Baldé coow li bëri woon na ñu ne yéen a ko daan topp di ko topp mu dem tey ba nangoo bëri ak yéen ngeen xëy bëgg a kale combat bi ñii ne da ngeen a ragal ñii ne problème mu xaaj la yow yaa yor mbër mi parce que li nga wax lu leer nañ la lan nga mën a leeral Sénégalais yi ci Ama Baldé ak Modou Lo actuellement. bon ni la ci mën a wax mooy laaj nga ma lu ma loo xam ne lii dama ko dund ndax euh, bu ma juumul yaakaar naa ne ñaari xale bu ñu bëree mbapat rek ñoo boole seen bopp te ñoom bëri nañu mbapat ci parcelle comme mooy bii mbapat bi nga xam ne bii moom la mu Lo di wax chaque jour ne daan naa ma ama kon ñoom ñoo boole seen bopp ba ñuy bëree mbapat bu ko neexoon bu ñu bëree mbapat mais yàlla dogal ñu bëree mbapat kon ñoo toppante ñoom. koo mënal bëree mbapat war nga mën a bëri moom arène mais gis nañu ci ne ah ma fekk na ko ci leen bi ko topp ci moom. moo jour ba mu yaakaar naa suma ma juumul Iba Mar Diop ba ñu jaan ji jëkk ji génn foofu mook ba mook baypal la woon Modou loo ko indi woon mu daan baypal combat am dernier combat bi passé moom ak Papa Sow dégg nga lañ ca waxta ci signature contrat yaa ci Iba Mar Diop mu naa ko jàppal mu naa ko Modou jàppal ci lee kenn ko naan la jàppal kon bu Ama daanee ku mel ni Papa Sow loolu moom Modou Lo moo dugal Ama Baldé ci moom ci combat boobu ndax da gis na ne mu ngi bëre te li muy bëree yàlla dogal na moom Modou Lo jàpp na ca kooko ndax kooku daa ko yëkkat jox kooko sax xëy na dafa baax rek ndax Modou Lo gën koo nekk ndaanaan écurie ba mu nekk xam nañu écurie ba mu bokk muy Fass muy Papa Sow xeebu ñu écurie Fass xeebu ñu leen ci lépp loo xam ne làmb da koy roulé bu dee xam am nañu ko bu dee ni maturité am nañu ko bu dee structure bu ñu am nañu ko ndax mën nañ booy seetal dañu naan ne mooy première écurie di fii ci Ndakaaru tey nga xam ne waaw mais nag seen chef da nga xam ne Falaye Baldé ko jàngal ba ne muy mbay Guèye kon loolu fekk na ci bokk na ci li nga xam ne nii moom ñaar lool rek ñoo moo leen daje ñu ñaari xale yoo xam ne yi nag yàlla dogal na mën nañu ci génn keppaar la ñu màggee wax naa ko barki démb rek ci benn télévision ndax ñoom écrit boobu nga gis noonu fii la ñu màggee ñoom ñoom Xaadim nga jégg buur na leen ñoom nekka ñoom bari na ñoom Malick Maître Aïs ñooñu waaye ñoom fii lañ doon jóg parce que lañ doon jóge di entraîné si fii ñoom ñaari ñaari xale yoo xam ne yi seen bëre daal yaakaar naa am na yàlla mën naa dogal nan bu amee mais olof moo na jàng-jàngaan boo moxalee bersa daara xëy na dañoo moxal moo tax ñu ñibbi mais li ma lay laaj ba tey te Sénégal yi bëgg koo xam te defe mooy Ama ak lu ko kale naa nag kale bi jàpp naa ne décalé wu ci kàttanu yàlla li ma jàpp daal mooy décalé na te li koy itam xëy na ñaari mbër yi yaakaar naa ne ñoom d'accord nañu bëriñ bu yàgg yàgg xëy na promoteur bi moo amoon tuuti xëy na lu desoon waaye su ma juumul am naa yaakaar ci kàttanu yàlla ne du yàgg tuuti ngeen dégg dara du soobee yàlla. maanaam kon su ma leen déggee fi mu nekk nii nekkatul problème mu xaalis ci seen côté parce que yéen dañ doon seen côté problème mu xaalis la woon wala loolu noonu la demee wala. xaalis sax xam nga mën na bokk ci làmb mais nag làmb li ko sos daawul xaalis. làmb du ko sos du woon xaalis xam nga bu jëkk da nga daan gis làmb joo xam ne jii tey da nga naan arène nas gabar ndooy arène Dudu Bakassar arène Bekkaay 3 ñooñu yëpp dañu mais boo gisee mu xaw a jafe nii sax gars yi di ko traîner nii kenn ku nekk di jéem a kii mooy benn drapeau rek la gars yi xëccu benn roi des arènes mais bu fekkoon dañu amoon yeneen euh, yi arène yoo xam ne kenn ku ne teg parce que drapo bi yor nii man na maa yor beneen drapeau man itam keneen yor beneen drapeau keneen yor drapeau boo bëgg a lépp comme li booy bamba defoon yor ba drapeau yu baree baree baree dajale ko loolu lu jafe la mais comme benn drapeau rek moo fi nekk moo tax xañ na combat yi ci bëri sax koo ci seet mën na la damay laaj la cachet boo xam ne bii doog ci bëre ndax xañ na ne moom ama bu fekkoon tey dafa laaj deux cent millions kii laaj trois cent millions quatre cent millions kii laaj un cent millions kii laaj deux cent cinquante millions loolu mën naa ñàkk ñaari mbëri dañu war a jàpp ne ñoom seen bëre war naa mën a benn benn yoon ñaari yoon ñett yoon parce que bëre bëre waat parce que mais ni mu la bëri na fekk mbër yoo xam ne bëri naa ñoom ñaari yoon juróomi mbër yoo xam ne man naa la jàpp ne bëri naa moom ñaari yoon te loolu ay combat la. mais léegi yéen 80 millions ngeen laaj lañ leen fay wala fayuñu leen 80 millions. waaw ci li ma jàpp daal mooy euh, ma waxtaan ci ak xëy na ñi ma ci doon waxtaan mooy euh, jàpp nañ ba ay 80 70 di yokk parce que ak suñu combat ak Tapha Tine bari na ci lu am yu mel noonu ay wax dañuy def tey di bu subaa ñu wax lee ginnaaw suba ñu wax la mais dama jàpp rek na xëñ na boobu promoteur bi moo jekku doon wala adversaire yi nga xam ne à cent pour cent ñoom ñooy laaj ku mel ne am wala amal laaj leen xëy na duñu jekk à 100 pour cent pour pare bëre loolu yaakaar naa ne daal mën na ne al xañ na xëy na combat bi nga xam ne Sénégal da koo bëgg jàpp naa ne ñaari mbër yi amuñ droit refuser ko yaakaar naa léegi 100 millions gen laaj yéen waaw bokk na ci bu fekkee ne daal bu ma sañoon man dañu may fay li ñuy li ñuy euh, deux cent millions wala deux cent cinquante millions yi adversaire lu ngeen laaj waaye ñun li ñuy laaj fi mu nekk nii xëy na comme euh, euh, am na ñu benn déggoo bu xaw a jege damaa mënagul a wax exactement parce que mën nga ne lii lañ la laaj fay nañ ni d'accord nañu lii waaye daal ci li ma jàpp nga gis naa ne ko kële woon noonu quatre-vingts millions yu dégg naa ko promoteur bi nag boobu ak léegi déggante baatuñu diggante bi dégguñu tuuñu mais am na ci yu bari yoo xam ne ñu ngi ciy dox di di ñëw yaakaar naa xëy na 80 millions yaakaar naa ne dina teg yaakaar naa xëy na yàlla mën naa dogal ci li ñu bëgg euh, prom daje ceeg promoteur bi yàlla mën naa dogal dinañ ci daje. léegi bu tegul 80 millions yi maanaam yem ci 80 millions yooyu nag kon du ngeen jël. waaw xam nga li ci dàq mooy ñun bu ñu xamoon nag beneen suñu adversaire la ko laaj fay nga na ndax waaye benn cachet rek la ñuy laaj benn cachet rek la tudd ñaari mbër la ñuy daje dañuy wax ne mbër mi fay nañ ko cachet bii mbër mi fay nañ ko cachet bi loolu la doon am dañuy xam ñaari cachet yi yow mi di euh, euh, kile journaliste xamuloo li ñuy fay beneen mbër bi xam nga ko wala xam nga ko. non man kay ci ñi laay dégg ak gëstu yu ñuy def xëy na ñu neen kii fay nañ ko lii mais ci Ama comme ci Ama la ñuy wax dañ ne Ama fay nañ ko.

bu ñu fayee prix bi ñu waxtaan ak moom ba d'accord ci moom bu ko neexee léegi fii nga may fekk di ma introsé na ma fekk fi jox mu avance bi ma bëre ak moom. est-ce que yéen jekk ngeen mystiquement. non loolu jekk xam nga mbër dama amoon sama benn xarit boo xam ne bii daan wax ne mbër du préparé day pare loolu jotewuñu ak moom dara l'essentiel comme bëre nañu bu yàggu rek daan xaritam moom mu bëree ak màggi xale yi daan xale yi yaakaar naa ne normalement combat ba war naa mën a taxaw. te yaakaar naa ne Modou Lo warta bañ combat boobu ndax dafa bëreeg barki Demba Ndiaye ku mel ni Eumeu Sène daan ko. waaw miin na Pikine daa mel ni. waaw ñun itam miin nañu parcel waaw est-ce que ragalu ngeen ko. ragal lan. ragal Modou Lo. ama ama ama bële nekk fële sax ragal mënta ragal am Modou Lo Modou Lo bi mu jur ci ndiggam moom. ragal bu ko Modou Lo bëggoon a xupp mu xam hmm. ah. loolu wax wax ju wax ju kii la rek loolu du loolu da nga naa da nga naa ñi ngay dëkk ama ndax ñeme nañu ko wala déet. kon da nga ragal da nga jàpp ni muut daa ragal ama yow. non déedéet du ma wax loolu sax waaye damaa bëgg nga xam ne ragal boobu nga ndax est-ce que ñeme ngeen ko loolu damaa xamul ragal fu mu ne ci doomu aadama man man baaxum. parce que muudu man li may seet loolu ñi bëri di wax mbër la moo xam ne nii fonk na entraînement mën naa bëri. te it am na ginnaaw loolu de la Sénégal yu bëri di wax moo tax dëkk ko mën nga koo dëkk waaye danañ jël avance sama jafe ah, bon ñun bu fekkee ne dañoo dem doon bëre ci ay maam ay mamaat ba yëg si fii moom xam na ne bàyyi mbër la woon moom maama Balde kuy bàyyam wala Balde bàyyam yéen a ñuy tees xaj na nañu lim ba yëg si ci fal ku mel ni ku mel ni Falla ndax am nga ko loolu lu jotewul dara bëre moo baaxoo noonu koy bëreel ci àdduna nañu jéem a seet ma xam ne mais ama bu ko xaalisu làmb ngéntee mu toog ba ragal bëre ak fitam di dem ci ragal bëre topp mbër mi pendant trois ans ou quatre ans ou cinq ans ba six ans ou sept ans ñu jàppante ca ba mbuur ba toll ñu yegg si na ko wax ah bu ko man du ma yoon mbër mu ragal mbër mu ma ragal yor mu ragal boo ma laajee si essence bala ma laaj essence sama delloo la ma yoon mbër mu ragal. ah maa kon ragalul Modou Lo kon. non non ba déggoo li mu wax xanaa moom nee na leen ñoom ñëpp maa leen di daan kuy bari daan ñëpp nooy ragal mbër yi. yow kon gëm nga ne Ama mën na daan Modou Lo day daan Modou Lo. yàlla dool yàlla mën naa dogal ci kàttanu yàlla jële bu ñu ko mës a daan ci bu bu ñu naa jàpp gémmiñ yàlla mën naa dogal dañuy ñaan suñu borom tabarakalla ba combat bi taxawee yàlla may ñu ci ndam lu rafet lu set wecc mais ñaan bi am na mais dama leen ndax sa ci li nga gis amaa di ko bëri li mu du bëri Ama mën naa daan mu loo jël bu rëy bëgguma sax mu daan ko ci ay minutes dama bëgg mu xeex ak moom ba mu senkom mu buddi ko ba ci ko dóor ci suuf xeex moom ba mu senkom maanaam dóor ba mu bàyyeeku senkom wan ko ne maa la mën da koo daan ndax dina yomb baaxum. non loolu bu doon yomb duñu ñu ko laaj. ndax neex naa juróom cinq combat. bu ñu ñaanuñu yàlla jël benn combat bu ñu naan ñoo la man ak mënatuñu ko yooyu moom mooy tànn naa du ma bëreeg Bombardier du ma bëreeg Ama du ma bëreeg Balla Gaye du ma bëreeg ak Gris Bordeaux du juróomi mbër yi fi man daanaka nga mën leen ñun mënuñu loolu xalaatuñu loolu la preuve mooy bu yàlla dogoon tey fii mu toll ñu toll ñu amuñu droit refuser kenn ku ñëw dañu war a même ñi ñu daanoon ñoom suñu bëggee bëreeg ñoom ñu fay ñu ma bëriwaat ak ñoom Tapha Tine lu tax ngeen delloo avance am. donc Tapha yàlla daa dogal ñu daje kalaaf bi ñu daan ko bëreeg moom daan ko yàlla dogal mu daan ñu effectivement de passage maa ngi koy nii parce que ay rakam moo nekkoon ci kii bi xëy na bu amee kenn koo ci moroom mënteel mooy ku mel ni guy gi xëy na guy gi la war a maaseel. waaye daal gis naa ne ñeneen ñi ci desul ñëpp ay rakam lañu te daanaka woon na bëre ñoom ci kalaaf bu muy koo xam ne kii mbër mu ma naw la. ndax itam bokk na ci mbër yi nga xam ne wax dëgg yàlla man gis naa ne moom surtout ko mel ni Bombardier gis naa ñuy bëre ak ay rakkam di bëre ak ay magam. mais lu tax ngeen dellu avance bi. non du loolu xam nga liy tax mooy bu fekkee ne ñun euh, xëy na mënuñoo wax lépp à 100 pour cent ci télévision waaye nag mbër moo xam ne bii da ngaa bëri woon moom daan ko daaw ci saison bi bi ñuy saison bi waa ji ub tëj ñu dox seen combat ñoom ñaar ñu dem ba ci biir ñu ne non promoteur bi ne mëntuñu ko tëg ci des ci saison bi. dañuy bàyyi ba déwén ma ne ko non doo mën a bëre ak ñoom bàyyi déwén da nga am ñaari adversaire potentiel yoo xam ne dañuy bëre waa Pikine te ñu ngi taxaw te ñooñu mën ngaa war a mën a ñoom mu ne ah, ma ne ko waaw ma ne ko Modou Lo day bëre ak Eumeu Sène Eumeu Sène waa Pikine la Lac de day bëre ak Boy ba Boy Niang waa la tey kenn ku ne ni ngay defaral couleur Pikine noonu la ñooñu di défendre couleur Pikine tey jii ci kàttanu yàlla bu yàlla dogalee bëre ñoom ñaar am yal na daan mais kenn ku ci échappé ci kàttanu yàlla war ngaa mën a bëre moom su accepté wul bu ñu demee ba ca ba ca diggante nag nga bëree ko préparer sa combat du génn diggante entre décembre ak janvier nga mën ci bëree balaa saison bi jeexal nga mën amal beneen combat mais boo nawatee ko xaalis ñu ne déedéewaay nga bëri ji fin saison day mel nii rek da nga année blanche ñaari yoon lu ñu nangu watee xaalis ndax wolof ñaar nee na yàlla denc na yàpp bu dul jën bu waaw. kontaan naa ci yow. jërëjëf kontaan naa bu baax a baax moom frère. di nuyu amateur yëpp di ñaan suñu borom tabaaraka kattan li nga xam ne lañuy dugg Sénégal gépp bëgg ko mu sotti ci kàttanu yàlla yàlla may ñu ci ndam lu lu yaatu lu neex noonu daal lay ñaan suñu borom tabaaraka di nuyu amateur yëpp di nuyu baa Leewtoo di nuyu di passage di nuyu sama xarit ba nga xam ne moom itam daaw xëy na tëggu leen làmb waaye bokk na waa Thialis mais bokk na ci ñi ko toog ci chaîne télévision wala seen la ki di laaj ne na bokk na ci état bi jàppale ko mu dellusiwaat ci làmb ndax fi mu jaar ci saison bi passé nekk na koo xam ne warut a ànd balance année balance ba bañ a am combat ñu góorgóorlu may ko moom tam sens may ko affiya boole ko sponsor yi mu tëgg làmb ndax moom ko woon tëgg làmb la ñoo ngi de parce que maa ngi nuyu ñëpp day santan ñëpp barke alxuraan jërëjëf